La ilaha illallah. La ilaha illallah. asalaamaaleykum wa wabarakatuh. wa barakaatuhu jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmbu jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmbu jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmbu yàlla sabam dool ay leram di ñaan Serigne Amdi Fall mom Serigne mul Fall menda sama borom yàggal ko fi ba naa lim naa ko Cheikh Ibrahim Fall mu def ko ni ko bëgg ta and ko murid yëpp non la ko ñaanale Serigne Mountakha Mbacké sangam bu baax ba suñu borom yàggal ak dundam wér ay cëram ba naa lim naa liggéey ko borom Tuubaa ne ko ni te ànd ko ak murid maa ngi siyaare mboolem euh, murid yi waaye siyaare mboolem Baye Fall yi na alali Cheikh Ibra Fall fu waay nekk rek di Baye Fall alali Cheikh Ibra Fall nga maa ngi siyaare ñëpp siyaare waa réew mi ak bitim réew di sant nag Cheikh Ibra baax ci ndigal yi nga xam ne waxtu wu ne mi ngi koo ci moom di ak ci daara ji rawatina ndigal lii nag di ndigalu ci njëriñ ñu am mbégte lool ci ndigal li ñu jox ah, ñu doxe ci murid yi doxe ci Pastef boo xam ne kawe nañ njort sax ñun ñi xam ni ndigal li wàccoon na ci ñun di àgg ci ñoom ndax ñëpp xam nañ ne wajur wu jigéen bi dafa bàyyi ko guddi ajuma samedi dimanche alterné mooy nañ ko ñaanal ñu ñaanal ko taata mu koy joxe ndigal li li ma gën a neexe noonu ci adduna amul ndax ku wajur wu jigéen génn adduna eh, ci ndigalu si la Fall yi fekk ko ci fal bañ doon togg korok ajuma ga ñoon togg ca jëm ci liggéey ba Mbàkke fal moo ko taxawee ba mu àgg ca guddi ga bi liggéey ñu ñaanal ko taata taata Cheikh Fall ñu joxe waat ndigal lu war a lu ñu war a tegaat këram loolu dal nam xel murid nag bu ñu ko déggee taata ndigal li doon taata bis bi di ajjuma ñu doxee ci doxi nu ñu ci doxee ñu ngi leen sant waa réew mi ak bitim réew ci njiital Baye Mamadi Kebe ci njiital suñu Ousmane Yadde soxna yi soxna jaali bëtu ñëpp xam nañ ñoom ahlu kafe gi démb lañ fi France euh, ak mboolem ñu àndal ñëpp ci njiital suñu Mbàkke Fall France fi démb boobu léegi di joxe ci kafe ak ndox ak was ak ko baaxoo defee ma siyaar baax suñu baaxoo Korea ci taxawaay bi ndigal li wàccee ba àgg ci moom tasaare na ko ci murid yi jottali ko ba kenn ko ne joxe ca lañ cay joxe di siyaare mbooleem ñu ne ci réew mi suñ basiroog yaa soxna gone yoo xam te ay jàmbaar lañ jàpp ci liggéey baax daara tuttànk yi ñu jëriñ paate ñëpp ñu ngi leen di siyaare daayira tuttànk Aliou Cheikh Fall gépp jëriñ suñu paate jóg waaye di siyaare waa jës bul murid ñi nga xam ne waxtu ne bu sëñ bi joxee ndigal sikar ba ay ci loxol waa Jazbul Murid ci ñi dal Sëriñ Modou Fall mu mel ne ne ñun dañ ciy am mbégte moo xam ne ndax suñu ne su neexoon sëriñ bi ñu toog ko pare mu ne tuur leen ko bu waa lañ ko tuur mooy ndigal li te mooy jëriñe wala mu ne euh, teg leen ko ci penc mi ku ñëw jot lekk mooy jëriñ li waaye tawfeex ji ci am mooy ni ñoom tawfeex ji ci am mooy jox gi nga leen ko jox Cheikh Fall dala jay fay séddale gi ñu koy séddale ñoom si Cheikh Fall yi Cheikh dala jay fay loolu mooy tawfeex ji nga xam ne ñu ngi ciy ko ci mu yàgg fi day mel ne am nañ mbégte lool di ñaan suñu am di faal mu yàgg fii ndax daa mel ne bu fi yàggee daal gis naa ne ngërëm yi dina dooleeku te ngërëm rek moo jëriñee sëñ bi daan wax ne ndigal lu ñëw da nga koy jàpp ne fa la sa ngërëm nekk daan na ngërëm lu ñëw nga jàpp ko ab soññee kon ñi ngi santaat di lax saayu waat di soññ àll si yarfaal gépp nag di wax ne bu ñu ko fii tey ajuma ji suba nañ xëy ca liggéeyu Mbàkke ba stade ba sëkk ba des na am nañu fa desaat ci wàllu courant ñu ko bi fa jugee màggal gaa ngi ñëw jublu ci dañuy sant xam naa ne jox suñu basiiru kàddu gi mu àggale mu àggale ko rek jërëjëf sëñ Bassirou Fall. jërëjëf Seydina Omar général ñu ngi lay nuyu di nuyu di jël sa sunu nuyoo di ko teg sa nuyoo nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool ak mboolem euh, kër yi Serigne Touba yëpp. ni ko noonu ñu ngi koy ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg si loxol sëñ Amdi Fall du Mbenda ak mboolem jabatug maam Cheikh Ibrahima Fall di jël nuyoo bi di ko teg si. njiitul sëriñ Modou Fall moom sëriñ Amdi Yaasin mii jëwri nii daayira Jazbul bi nga xam ne moo lëkkale sëti Cheikh Ibrahima Fall ak maam Saliou Fall ak soppe yi ak taalib yi nga xam ne ñoo nangoo ànd ak ñun ci liggéey bi di ji ji ji jëlaat nuyoo bi di ko teg ci loxol ñi ma bokkal organisation bi tama nekk seen loxo jëf jiiti muy jëf joo xam ne yàgg nañ koo seet te sikar te sikar sa te sikar sa ba léegi ba sikar tàmbalee ba léegi saabu ko sëriñ bi saa ko sëriñ bi sante togg ni leen digal leen ngeen togg yalla def na ci jissum mur la len digal ngeen di ko indi waaye bu ñew man samay loxo ci lay teggu kon man séré la ci lama la waxon ci bis bu mako ñëkke séré rek ba ji mom la alal fu borom jëm yobale ko lu ne lu ne nit man nako am bam ñak ko bam dess alal alal fu borom bu dem ba ci biir bàmmeel da ko yobale kon li tax ngeen taw ngeen taw li len tanal tuddu doon alal cheikh ibrahim lolu du du du du saayir mbir mu leer nañ la sa waajur wi fi jóge barki dembu biñ koy denc sama xel ci lim njëkk a nekk mooy loolu bis bi mu nelaw sëtub së doomi sëñ Assane Fall ci nelaw ak sëtu di ak sëtub sëñ Fallou Mbacké ñaar ñooñu nag ku tudd yoonu murit xam liñ ci doon Cheikh Ibra ak sëñ Fallou luñ ci doon léegi bu euh, yow général boo dee liggéeyal Cheikh Ibra ba bis ba sa waajur du fi jóge ñu boole ko sëtub sëñ Tuubaa ak bu Cheikh Ibra boole doo denc noonu boole seere noonu ba kàddu ya fa nekk ñu wax ko ba pare sa waajur woowu newoon ci kër sëñ Moustapha Fall soxna suñ doon denc doomi sëñ Moustapha Fall yoroon ko loolu ko ko xam dara xam ni kooku tase na ak tawféex ak ni nga ko waxee nga xam ne daa taxawu liggéeyub kër liggéeyub kër suñ Tuubaa boobu boobu àgg foofu mu doog fa mu doog a yeewe ko te àdduna lu waay lu fi waay yàgg-yàgg li ngay ñaan muy mujj gu rafet te yàlla defal na ko mujj gu rafet euh, jur doom nag kenn ku ne dina ko ci tur waaye ju mel ni yow loolu leeram naa ñu ab bu àggee fa mu jëm du ko du ko rëcc ndax lii nga feeñe kenn ku ne bëgg na see feeñe nit a ngay siiwee lu ne ci àdduna waaye boo fi jógee fo la yem ndax loolu boo yow mi ko siwee woon sax dootoo bëgg ñu tudd la si waaye lii nga siwee ba ilaa yow mi dootul fay ngërëm la loo xam ne ci deret deret lay topp ñi Seex Ibra gërëmoon seen i maam ba tey jii boo demee fekk ko fa lii ngay wut nag Seex Ibra mi ko mayoon jóge fi yàlla mi joxoon Seex Ibra loolu jóge fi yàlla mi doon joxe ba tey moo fi ne ku wut li ni ñi doon wut rek yàlla jox la lu tolloog sa daraja kon góorgóorlu leen waa alal Seex Ibra du soññi waat waa Jazbul Mouride lii tawfeex la bokk ci bara bokk ci mbir ba pare ñu la say liggéeyloo sëñ am ni Modou Mbène amuñu ak cantam waaye jiital ko sëñ sa jëm mi nga xam ne ci la daayira bi sosoo mu tànnal ñu daara alxuraan jee ak liggéey yu bëree bëri mu ñu say feeñ sëñ am ni Modou Mbène gën a ñëw ya dëggal loolu yaatal ko di ñu liggéeyloo te ñun liggéeyal Seex Ibra dong moo ñu war kon bu ñu ko dee def loo mënuñu am mënuñu am lu sant ak gërëm ko waaye nag di sant alal li Seex Ibra mboolem ko suñu buñ tuddee général rek tudd nañ ñëpp ndax liggéey bi ngeen liggéey ci sunu sunuy loxo lay jaar donte wuñ ko waaye yaakaar nañ Seex Ibra te ak ci ak wax nañ ni ci lañ bokk kon bu ngeen dee liggéey ñu koy seen liggéey di jaar si ñun loolu bay boo yéen si bokk ñëpp seenum xel dal si liggéey seere la yoo xam ne wóor nañu liggéey boobu borom jot na si addiye la joo xam ne kiñ ko jox di ko delloo kër Seex Ibra la jóge dem kër Sëñ Tuubaa kër Seex Ibra lu fa jóge Sëñ Tuubaa da koy nangu te Sëñ Tuubaa lu mu nangu yónente bi nangu ko te yónente bi lu mu nangu yónente sunu borom nangu ko kon loolu rek mooy la ilaha illallah la ilaha illallah